les gens pensent que état mooy def li mais état yow la man la képp Euh, maa ngi dégg léegi agent envoyé mu ne jaar na fi ñaari yoon di laaj seen autorisation de construire agent envoyé bu commune bi ñu ni jox nañ ko ki fi nekkoon dafa génn dafa ba nekk. am na loo xam ne olof Ndiaye nee na euh, bët du yenu waaye xam na lu bopp àttan je crois que bâtiment bi ko xool ku fi fanaan rek déjà euh, neexul wax nag entre sénégalais parce que. on a une culture du ndeysaan mais ku fi fanaan xool ko xam nga ni kii yaa ngi dugg ci loo xam ne sa mise en danger bopp la code de la construction nag day boo xam ne moo régir wàllu tabax dañ bu yi amee bu ñu constaté péril arrêté de péril le maire bi jël mais maire bu jëlee arrêté de péril da koy jox pour wax la yow nga mën a génn toj. Euh, fii am na fi ay euh, kii yu fi jaar yoo xam boo tojee kër jàmm ni ko nit ñi foogee c'est pas aussi facile que ça maintenant tâche bi dafa yaatu rëy ba nga xam ni ku la ni mën na ko régler ci benn fan ñaari fan du sotti tey jii bi may ñëw maa ngi jógee HLM Maristes yéen a ngi dégg coow li tey. mais bañ ne dañuy génne niñ dañuy yëkkati dafa am benn genre soulèvement pratiquement nit ñëpp jóg def benn tolle daan bu ñu fi jëlee bu ñu fi jëlee sa ñoom ñoo ngi toog di nekk foo xam ne leer na ni fi ñuy fanaan euh, yàlla baax na yàlla baax na mais il faut en un certain moment que nit ñi d'accord xam ni responsabilité dafa commencer d'abord su yow responsabilité bu commencer ko état nag yow la man la ñëpp la commune la délégué de quartier la tout un ensemble la ñooñu ñëpp bu fekkee am na ci maillon bi kenn ku faiblir ci kii faiblir mooy kii njëkk ñëw dëkk foo xam ni xam na ko ni lii fu muy fanaan moo ngi mettre boppam en mais la responsabilité nee ko dox mais d'abord cette personne là qui a la responsabilité première li ci yokk nag mooy comme ni ma ko waxee tool bi dafa yaatu yaatu waaye boo xam ni parce que ku ni Médina wax souvent problème de de de de de bâtiment menaçant ruine dafa yàgg la. am na téeméer at yu tegu ku xool bâtiment yi xam ni bâtiment yi yàqu na bâtiment yi màgget na mais buñ ku ñu jox arrêté de péril parce que pour l' essentiel bu ñu wàññi woon li ñu génne ci arrêté de péril jox ko wax nit ñi ñu génn wala nañ ñu kii buñ ko wàññi woon kenn mënu ko jeexal en un certain moment nag. état dëgg la moo ngi def li mu mën mairie moo ngi def li mu mën mais il faut que les gens acceptent que la responsabilité première c'est d'abord à leur niveau en man loolu laa ci constaté di regretter comme ni ma ko waxee li nga xam ne am na fi ah koy wax sànq di wan ay photo immeuble Maris lañ jógee y des gens qui sont là presque 400 familles mais bi ñu leen waxee génn leen ku nekk da nga daan duñ dem duñ dem fi ñu toll chaque fois on le fait les gens sont sortis dañoo ñeen génne ñu daal defaat taf yëngal raax daal di kii bricolé ba nga xam loolu am lool nag mooy loo xam lu domage la il faut que sénégalais ku nekk jël sa conscience individuelle bu la état ne defal lii nga nangu ko bu la maire ne defal lii nga nangu ko yaakaar naa loolu bu ñu ko defee yu dem ni yàlla mën a def ñu ñu ñu ñu toog di xaar naan état état ku toog sa kër am yenn kër yi xool ko xam nga ni yii yaa ngi nekk dans situation yaa ngi mettre sa vie d'abord en danger. Euh, leen maire joxe arrêté de péril. Hmm. bu ñu génnee fan la ñuy fàttali. non attends maire da jox arrêté de péril li ma lay wax lu ñu mën a teg la monsieur maire ni bon par ngeen laaj ko souvent dañ leen jox arrêté de péril jàppale leen. ci koppar yenn saa yi jàppale leen logement provisoire mais dafa am loo xam ni il faut que les Sénégalais acceptent que état mënu ko kenn mënu ko bu ko état defoon sax du ko def munoo nekk ci benn dañ lay dëkkal pendant un temps mais souvent dañ ñëw léegi la dégg maire muy waxtaan ak ñoom naan dina seet fu leen loger pour quelque temps mais pour quelque temps aussi bu am na loo xam ne également responsabilité individuelle la état mënul ku nekk mu jël wutal la kër defal la lépp ndax état mënu ko parce que état aussi charge yi bëri na doole néew doole boo xam ne enfin pas néew doole mais je veux dire tool yi yaatu na yaatuwaay boo xam ne lépp kenn mënu ko def pour ñëpp ça aussi il faut avoir honnêteté de gis jërëjëf